revanche su ak Modou Lô waaw combat bu metti combat bu normal waaw est-ce que li ci amoon bu jëkk xalaat nga mu amaat ci bi yoon ci yoon bu fekkee ne ku ne def nga li nga defoon buñ ko doublé nag moom lu raw loolu mooy am Modou Lô la mu defoon Eumeu Sène xalaat nga mën na ko koo defaat ci deuxième combat bi Modou Lô lu mu mënta def ci làmb amul ak revanche bu toll nii ci Eumeu kenn koo koy xareñ loo waaye nag mi ngi bëreek Demba Ngom ak Demba Ngor Demba Fëri maa jegeen mi ngi bëreeg ku mën a bëree mi ngi bëreeg koo xamante ne nii ñoom moom tolloowuñu ci làmb xam nga lu dama la tolloowuñu ci làmb Eumeu Sène dafa am chance su bëreeg mbër yu mag yi dafa am chance su fekkee yenn mbër yu mag yi toogal leen cumikaay amaana sax ànd ak ñoom dem bëri ji ay Mansour Diop ay Père Pala ah bale bi ay père Mbacke ba dëggul mu kotuwaaye ñooñu day am lu nekk ci moom mais kële mayu yàlla la am mayu yàlla la am. combat ba foo xalaat mu jeexe bëre ci bëre lay jeexe xeex du ci am bi am xeex bu saf mais dinañu bëre parce que Eumeu Sène nee na ku ko dóor al bi. te comme que day àbb yat bi il faut mu def Modou li ko Modou defoon. am na favori. am na favori am na favori làmb jooju est-ce que du 50 50. est que du cinquante cinquante bu dee ci favori ci mental lay nekk te Eumeu Sène a koy ëppale tuuti Modou Lo lu tax ah parce que Eumeu jógee ci victoire que daan roi des arènes roi des la daan nekk roi des arènes te ki mujjee daan Modou Lo Eumeu ko ñaari yoon bu dee dañuy am esprit bu ñuy demee ci mentalité bu favori favori favori bu buy am ci mental lay doon te ci moral lay doon te Eumeu Sène moralement xam naa mooy xaw a tane Modou Modou miy ñëw di bàyyi xel li mu bëree woon